communiqué bii ngeen di gis te mu daal di bàyyeekoo ca assemblée nationale nga xamante ne nag dafay daal di wax ne ab commission d'enquête bu ñu tijji woon ci mbirum corruption ci fanweeri fan ak benn ca weeru janvier bële ñu daal di génn ñu ne nag ah, ñi leen di député PDS yi dañoo waxoon ne ah, ñaari juge yi Cheikh Tidiane Coulibaly ak ki leen di Cheikh Ndiaye ah, dañoo def ab corruption ci candidature Karim Meïssa Wade ba ñu ubbi woon ab commission d'enquête 2017 foofee ca assemblée nationale ñoom sept sages yooyu nag daal di bind daal di ne ñoom juge yi mënuñ leen a daal di enquête euh, ci devant les euh, députés ba tax nag jamono jile may wax ak yéen mbir ma nag gën naa euh, doy waar ndax procureur de la république la ñu jébbal mbir bi ni mel jamono jile nag ñaari juge yooyu di Cheikh Tidiane Coulibaly ak kile Ah, di Cheikh Ndiaye ñoom ñooy dem jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñoom ñooy procureur de la république ci fàttali nag ñoom député PDS yi dañoo wax ne dañ leen a ger lu toll ci ñetti milliards ngir ñu daal di ah, gàntal li leen di candidature bu Karim Meïssa Wade ba tax nag jamono jile gis nañ ba nga xamante ne sax report élection yi gis nañ ah, ci juróom-ñaari charge yooyu noonu ki di juge Cheikh Ndiaye moom si bokkutoon ci ñi signé ci li nga xamante ne rek moom mooy régé report élection présidentielle 25 février eh, biñ ko daal yi jàppoon ba tax nag jamono jile ñoom ñaar ñooñ danañ ja danañ dem daal di jàkkaarloo kile di procureur de la république bu mel ni nag lii di plainte ba ak ouverture d'enquête parlementaire ba jamono jile mbir ma daal di nay tàbbi ca taabalu procureur de la république